kon boog internet Leewtoo TV ginnaaw ba mu leen nuyoo di am contentement ak mbégte gën a yéen chaque suba indi leen gën a fas ci bopp xibaar yi laata loolu la comme ma koy defee dama nuyu ñu ma feggoon Mbaye Babacar nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay bu baax a baax wante ñu ngi nuyu suñu mbokk yëpp di ñuy topp ci Leewtoo TV di leen jaajëfal bu baax a baax ci saxoo bi nga xamante ne ñu dañuy saxoo topp Leewtoo TV wante maa ngi nuyu bu baax baax waa Diourbel Asar Waalo baax maa ngi fa fay Ndeye Mbacke amaan mbégte jàkkaarloo ak yéen pour euh, indil leen li gën a fës yéen kaayu làmb ji jërë ngeen jëf. mercredi 27 janvier 2021 suñu làmb xëy ci xëtëb bu njëkk contre Modou Lo Ama rassur seefan kooku de xelam dal na. Ama Baldé mu mel nii mooy sëll bu ndaw bi nekk fële ca Pikine euh, nee na mi ngi dalal xelu amateur yi xelu xelu xelu fans yi nee na li mu bëgg mooy. déjji Modou Lo ci 16 bi mu toog muy 16 roi des arènes dem na fa faax. toog moom Ama Baldé. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la contre Modou Lo Ama Baldé rassure ses fans club noonu la ko journal bi waxee maanaam Ama Baldé mi ngi fay nekk di rassurer ay fansam euh, weekend bi passé nag dafa dem à la rencontre de ses fans bu mu fa demee li leen xamal mooy que na seen xel daal na seen xel daal moom couronne bii nekk ci Modou Lo dina dem jël jëli ko ci ay loxoom indi leen ko ñoom waa Pikine euh, Ama Baldé salue tous mes je salue tous mes fans où ils garder confiance je vais confisquer la couronne noonu la noonu la ko Ama Baldé waxee Baye Babacar. noonu la ko waxee sën sa yetmaloo moo mu au lutteur mu ne kii sa euh, au lutteur qui veut pratiquer le la la lutte avec frappe est plus attractive que les MMA. seen say di borom xam-xam ba xamante ne bii xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu sport de combat li mu xëy ak journal bi tey nee na nga am na ëpp téeméeri kilo taxul nga nekk un bon combattant pour nga nekk un bon combattant laaj na ay qualité yu bëri wante tamit ñëw na ci MMA bi ak ci lutte avec frappe. ni nga ko waxee noonu la Babacar yat ma loo xam nañ ko ci RTS moom nañ koy dafa journal suñu làmb daf ko jox kàddu mu àddu combat bii doxoon ci Alain Ngalani ak Reug moom li mu xamle mooy euh, lutte avec frappe moo gën a attractif MMA ndax nee na lutte avec frappe mën nga ci cent 150 millions te MMA bi wóorul nga am ci loolu waaye euh, itam mi ngi indi ay conseils ci nit mbër yi nga xam ne bëgg nañ def MMA lu mu leen di xamal wala li mu leen di yëgal mooy que ñu góorlu jéem a def ay entraînement ci wàllum king boxing wàllum euh, boxe française boxe anglaise ak euh, lii di xam ne moom mooy karaté nee na yii daal bu ñu ko mënee dinañ am chance dëgg réussir ci MMA bi. ba tey coach Diabang coach Diabang mu ne Reug Reug a des chances d'être sponsorisé maanaam mën naa am ay jàppale ci nga xamante ne mooy MMA. mu ne coach Diabang nee na Reug war naa mën a bokk ci ñi nga xamante ne bii ñoom la ñuy sponsorisé. ci euh, MMA bi niveau mondial li ko waral mooy Reug Reug mi ngi ci yoon bu baax mi ngi ci lancé bu baax te mi ngi teg tegle li nga xamante ne bii moom mooy ay victoire nee na dënnu caaroy bi mu war nañ ko mën nañ koo sponsoriser marque yu mag yi nekk ci àdduna bi mën nañoo bokk ci ñu koy sponsoriser wante tamit ñëwaat na ci combat Ngalani ak euh, Reug dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la euh, coach su Jabang benn euh, xelam dafa màcc ci wàllum sport de combat moom nag li mu xam le mooy victoire bu Reug Reug bi moom bettu ko woon lool ndax Reug Reug nee na dafa préparé bu baax combat boobu nee na itam Reug Reug am na chance bu baax euh, am ay sponsor ay vêtement ñu sponsor yi kan ndax nee na MMA ñooñu dañuy nekk ci milieu boobu pour di sponsoriser sport yo sportif yooyu di fa di fa di fa tàggatoo nee na daal Reug am na chance dëgg dëgg dëgg réussir ci MMA bi ndax champion dëgg la suñu làmb ñëw ci nga xam te nii mooy 2011 2021 fortune d'hiver des frères Fassois ki nga xam te ne mooy Gris Gris Bordeaux Gris Bordeaux dans le dur l'envol brisé de de Gris 2 ki nga xam te ne nii moo ko daan mooy Reug Reug boo freiné nga xam mooy carrière am ci loolu la suñu làmb xëy bind. mu mel ne fukki at yi ñu génn 2011 ba 2021. Euh, fukki at lan fukki at la mu mel ni journal bi dafa ñëw ci ñi nga xamante ne bii mooy frère yi di Gris Bordeaux ak Gris 2 mu mel ni ñoom ñaar bokkuñu ay résultat kii bu ay résultat am baaxee ki ci des ay résultat xaw naa gall góosi dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la suñu journal suñu am benn étude bu yaatu la def entre Gris 2 ak Gris Bordeaux mi nga xam ne moom mooy magam de 2011 ak 2021 la def ci étude boobu nee na Gris Bordeaux est dans le dur l'envol pour Gris 2 nee na ci 10 ans yooyu Gris am na ci 6 combats 2 défaites ak 2 victoires ak 4 defet alors que Gris ci 10 ans yooyu am na ci 9 combats 8 victoires ak benn défaite nee na daal. Euh, Gris 2 Gris Bordeaux mi ci ay jamono yu lëndëm waaye Gris 2 moom reebam moo brisé ci 10 ans yooyu yaa Mbacké Euh, animé par une par une féroce envie de se relancer Bougane a hâte de renouer avec la compétition yaakaar naa ne ci nga xam mooy làmb ci. waaw dañuy dem fële ca euh, écrit aslem fekk fa Bougane moom nee na li mu yàkkamti fi mu toll nii mooy làmb ji ubbi li mu yàkkamti mooy ñu ubbi buntu làmb ji mu tooyal xaftaanam ndax li ko waral yaramam dafay xasan fi mu toll nii bëre rek la bëgg. dëgg la Babacar Bougane benn mbër la bu nekk ci écurie HLM moom nag nee na yàkkamti na lool ñëwaat ci làmb ji ndax ba mu fiy jëp ba mu fiy gëj dafa amoon defet ci devant Giro Giro Seras moo ko daane woon ci 4 mars 2018 depuis boobu ba léegi daal amaatagul combat mais nee na yàkkamti na lool ñëwaat ci làmb ji ba mën a relancer combat euh, carrière am ba tey Ibrahima Faye euh, directeur technique de Buzz Prod mu ne le PPV est une vraie alternative pour les promoteurs maanaam promoteurs yi war nañu mën a jël PPV. Oh, waaw moom li xam ne mooy nee na PPV bi mooy alternative bi nga xamante ne bii moom la gën a jàpp na moom moo gën a gaaw ci li nga xamante ne bii moom mooy delluwaat làmb ji ci fi mu nekkoon na ci amateur yi nga xamante ne bii ñoom ñoo jël seen xaalis dugal ko ci làmb ji. dëgg la Babacar Ibrahima Faye moom mooy patron bu Buzz Prod. ñëpp xam nañ ko ci làmb ji moom nag li wax mooy que ne VIP yi bu ñu bëree PPV bi day dox ndax ñoom dañuy euh, amateurs yi dañuy dem jëndi PPV bi pour seetaan leen ndax nee na première fois bi ñu essayé loolu en ñoom li ñu doon xaar moo ñu am 20 000 à 30 000 euh, visiteurs mais ñeen nee na à la fin am na 250 000 nit yoo xam ne nii dem na jëndi PPV bi pour seetaan combat combat boobu nee na itam Balla Gaye mooy euh, mbër moo xam ne nii moo gën a populaire ci wàllum PPV boobu. ouverture saison 2020 seen président CNG mu ngi déglu ki nga xam mooy Matar Ba. président CNG bu Sénégal di Bira Sène moom li mu xam ne mooy saison 2020 2021 moom nee na euh, bal bi mu ngi ci kaw jëwriñ ji nga xamante ne bii moo gàlloo wàllu tàggat yaram ci biir réew mi muy Matar Ba nee na bal bi mu ngi ci ay camp mooy tulli mooy mbalax. dëgg la Babacar ni ko waxee noonu la ñëpp xam na ko ko euh, année bi ba léegi wala saison bi ba léegi démarré gul. Matar Ba nag demoon na fi Cameroun ak cap waaye ñëw na mais li journal bi wax daal mooy Bira Sène moom mi ngi toog di xaar Matar Ba muy ministère des sports pour que mu jox ko ndigal saison bi mën a ubbi waat nee ne moom rek lay déglu pour que saison bi mën a démarrer lay bàkkee ba tey euh, Assane Ndiaye la ñuy delluwaat bu coup de gueule moom mu ngi naqaru li nga xam ne dañoo jug ci làmb ji ndax ngir mumbaay bi ak coow yi doon topp leen amul benn i oh, patron Bawol production di Assane Ndiaye mu mel ni moom lañ Pape Aline mbay moo ko fa invité woon mu mel ni yëkkati na loxoom dóor ci taabal ji Assane. li ko waxee noonu la moom li ko naqari mooy nit ñi nga xam ne nii dañuy dundee làmb te du dundal làmb ba mu fa demee li mu kaas mooy que ne li nit ñi di dem ci plateau yi di wax te du waxu intérêt làmb loolu naqari na ko trop trop trop te loolu bëgg na mu dañ moom daal Assane Ndiaye nee na waru kenn warul dem ci palaato tele di dem di waxal làmb alors que yow làmb sax xamu la. Kati Diop impressionné par la force de Tapha moom mi nga xamante ne bii moom moo nekkoon ancien coach bu yi Yaxya Diop Yékini Amadou Kati Diop ñëw na wax yëkkati ay kàddoom jëmale ko ci champion bi di tafaatin Tine les géants du Baol. mbër moo xam ne nii mbër mu gaay bàyyi xel la ndax poids bi am Kati Diop tamit noonu la ko Tapha Tine jaaxalee ndax poids bi moom daal nee ne poids bi Tapha am jaaxal na ko trop. nee na Tapha Tine mbër dëgg la waaye lu ko gën a jaaxal mooy que ne Tapha Tine ci combat mi utiliser dooleem boobu pour imposer ko ay adversaire am moom daal xeex lay privilégié wala day xaar adversaire am au lieu mu def forcer leen dem jëli victoire bi ba léegi suñu làmba ñëw ci nga xam te ne mooy Pape Thialis Faye le boss de l'auto production ki sa feeraar nee na gisatuñu ko fenn gannaaw ba ñu toogee diir bu yàgg dégguñu ko moom Pape Thialis Faye moom ni moom ni di borom bawul production mu mel ni dellusi waat bi mu dellu see dafa ñëwaat ak force ndax dafa ñëw taxawal combat bi nga xam ne moom la amateur yëpp doon xaar muy dox ci diggante Tafatine le géant di Bawol ak Boy Niang 2 doomu dëgël xale bi nekk fële ca Pikine. dëgg la Babacar Pape Thialis Faye ñëwaat na waaye nag journal bi dafa am lu ko ci jaaxal mais ne ba ñëwaatam dafa tëgg benn combat boo xam ne ñëpp ñu ngi doon ñu ngi ko doon xaar muy Tafatine ak Boy Niang 2 waaye li ci jaaxal journal bi mooy Pape Thialis Faye kenn dégg ko mu àddu ci. en plus jusqu'à présent démarré gul euh, promotion combat boobu loolu nag jaaxal na journal bi ba tax muy laajte ca Pape yi Sow fan la nekk ak lu ko teree démarré promotion combat boobu ba léegi. dañuy dem ci nga xam ne mooy journal record MMA Mamadou Diouf ñu duppee ko le coach de l'extraterrestre mu ne Reug Reug vise le titre numéro un mondial. Mamadou Diouf moom mi nga xamante ne bii moom mooy euh, entraîneur euh, dënd ba la nekk ca caaro ñu naan ko rëg-rëg moom nee na rëg-rëg fi mu teg bëtam mooy nekk numéro un ci wàllu MMA ndax qualité yi am na ko te it mi ngi ci yoon bi nan ko jàppale mu àgg fa. dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la Mamadou Diouf mooy coach su rëg-rëg ci MMA moom nag daf ne euh, combat bi doxoon ci Alain Ngalani ak rëg rek moom nee na tiitu ci woon dara ndax gis na Reug Reug muy préparé ci côté physique côté technique ak côté mental de telle sorte que ba muy avant combat bi moom tiitul woon benn yoon ci ndam li ñu fa waroon a jëlee nee na itam euh, Reug Reug bi mu doon entraîné Alain Galan yi tax ko woon jóg li ko taxoon jóg moom mooy titre mondial numéro un bu MMA nee na daal loolu moo nekk ci bëtu Reug te loolu la bëgg a yóotu ba tey record mu ñëw ci nga xam te ne mooy fusion entre l'écurie Fass et l'écurie Ndakaaru ñi nga xam te ne pare nañ pour commencer li nga xam te ne mooy seen i entraînement mu mel ni ñaari écurie yooyu nga xamante ne bi jamono bii booy xool ñoom ñaar dañoo xaw a nekk ci ay tolof-tolof ñi ngi ci si wa ñi ngi waajal seen ay entraînement euh, ñi ngi ñi ngi dajaloo ngir waajal seen ay entraînement wante tamit dàquñu àndandoo booloo boole ñaari écurie yi muy benn asal dëgg la Babacar fusion boobu daanaka ay lu tuuti moo ci war a des ñu mën ko finaliser ndax euh, weer yi passé euh, nekkoon na ci journaux yi ñu wax ko fusion bi daal li ci des bëreetul waaye li ci gën a euh, li ci bees mooy que ne Fass ak Ndakaaru pare nan pour débuter seen entraînement ndax dañ ko dañ ko njëkkoon a jàpp ci weer yële jàll mais mbas mi ak nouvelle vague bi taroon tellement que ñu reporté entraînement yooyu léegi nag journal bi nee ne préwaat nan pour démarrer waat seen entraînement yooyu di xool fan lay mujj ak ñoom Ndeye Mbacke. jaajëf Assane waa loolu moo nekkoon li gën a fas yéene kaayu làmbat jaajëfal suñu mbokk yi di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm jaajëf. asalaamaaleykum. di remercier waa Linguère comme d'habitude jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm. jërë ngeen jëf ah mbokk internet Leewtoo TV ak ñi nga xam te ne ñoo safoo ndamoo ak commentaire gis nañ lépp ah, di leen bëggee bu baax équipe bi maa ngi leen remercier bu baax Mansour kontaanee naa la ah Ousmane bëggee naa la bu baax a baax a baax ku ci mel ni suñu infographie Malick Yacine Fall suñu damay sant gërëm. maam Diarra Kébé bi nga xam te ne nii boobu bu rafetee rek moom moo ko teg jaajëfal jox dëgg daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.